saa ñu waxee kankurang xel dem ci dëkk bi may jëm bu ñu waxee également euh, euh, tàggat yaram di football xel dem fa aussi euh, et puis dëkk la boo xam ne dëkku noppalukaay la bokk yi ñu taamu ci réew mi bëri na histoire du ma ci sori Abdourahmane jàlloo la ñu fay fekk Abdourahmane maa ngi lay nuyu. jaa ngeen jëf ci seetaan télévision Futur Média ñu ngi fii ci Mbour quartier Grand Mbour wetu tali bi nga xam ne moom moo jëm fi nga xam ne moom mooy hôpitalu mbuur ñu war a waxtaan ak waa Mbour laajte ba xam-xam nañu tuuru mbuur lan la tekki waaye yow noo tudd man Ndeye Guèye Ndeye Guèye euh, mbuur nga dëkk mbuur laa dëkk kañ yaa ngi fi depuis kañ yaa ngi naa fi de fii laa juddoo fii laa màggee est-ce que xam nga lan mooy mbuur lan mooy mbuur dëgg yàlla de xaw ma lan mooy mbuur de waaye fii laa dëkk daal tuuru mbuur xamoo fan la jógee tuuru mbuur xaw ma fan la jóge daal. Euh, yaay booy yow tur nan la. man Fatou. Fatou nan faatu Diaw la. Euh, yaa ngi fi depuis kañ mbuur fii. Mbour ah léegi yàgg naa fi de. est bi nga fi nekkee ba léegi xam nga mbuur tur bi fan la jógee wala lan mooy Mbour. waaw ba xam tur bi mu jógee ak lan mooy mbuur sama waa daawa kundaay de samay mbokk ak jabula kundaa waaye wax dëgg yàlla man xaw ma ko nag. a yow xalaatuloo benn yoon mbuur lan lan moo war a mën a tax bu <laughs> dëkk bi tudd mbuur. ba dëkk bi tudd mbuur. ah de déedéet wax dëgg yàlla. mon père tur bi nan la. Euh, dañ may wax ne Pa Omar Koté Pa Omar Koté voilà. Euh, yaa ngi Mbour depuis kañ. oh bon je suis à Mbour depuis 1953. yow moom yaay Mbour quoi. oh bon man nañu wax ne maay Mbour. Euh, ci loolu dañu bëggoon xam tuuru Mbour fan la jógee est-ce que yow xam nga tuuru Mbour fan la jógee. waaw mais si un si ay bon déglu ay émission si histoire yi voilà donc euh, ma dégg ne Mbour ay séeréer ñoo ko jëkk sas am benn pa est-ce que moom tuddul woon sax euh, Mbour Faye pa séeréer boobu dëkkoon ñani dégg naa si moom la jóge daal c'est les premiers séeréer yi habité à Mbour ba tur boobu si moom la jóge ba euh, mu tudd Mbour merci mon père voilà merci vous aussi jot ngeen déglu ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk mbuur ñu wax ñu ñoom li ñu xalaat ci tuuru mbuur fi mu jógee ak euh, lan lay féer léegi nag dañuy dem fi nga xam ne moom mooy tefes foofu la jaraafu Mbour boobu mu ngi wuyoo tuuru Badou Ndoye ñu ngi foofu dem fekk ko mën a waxtaan ak moom mu wax ñu moom it tuur bi fan la jógee. li war a tuuru Mbour dafa am jamono boo xamee ne am na. tubaab yi fi ñëw fekk mbuur fay nekk kër Nanet Demba Kebe nekk kër Traaf bi ñëwee laaj ko noo tudd mu wax ko Mbour moo tax ñu tudd Mbour mbuur wante mbuur fay am na ñeenti séeréer yu ko fi jiitu yoo xamee ne walaan safte naar waali mbëñik ñoo ko fi jiit Mbour Faye mooy kan kan mooy Mbour Faye mi nga xam ne moom lañu ñu tuddee Mbour moom lan la doonoon Mbour fay benn séréer la woon boo xam ne dafa ñëwoon nekk foofu bi nga xamee ne nag booba Mbour cëréer gële amagul wante booba Mbour réyul yaatuwul te westam ñëwagul woon ñan ñoo fi jëkk dëkk dafa mel ni bu ma déggee li ngay wax séeréer yi ñoo jiitu ci Mbour dafa am loo xamee nag werante la ndaxte ku si nekk day faral sa boppa ñii dañ naa séeréer yee fi jiit ñii naa soose yee fi jiit nag kenn mën la see wax tam dat ba waaw wante man tefes si boppam mën naa laa wax dat bi en 1898 la tefes ma gën a 11 novembre 20 ans 11 novembre su ko ñëw waaw. jërëjëf jaraaf lii moo doonoon li nga xam ni indil nañ leen ko di sant di gërëm El Hadj Badou Ndoye moom mi nga xam ni moom mooy jaraaf bu mbuur dalal ñu wax ñu yi xibaar ci nit ñi mën a gën a xam mbuur di leen jaajëfal yéen mi nga xam ni yéen a nekk di seetaan télévision Futur Média Abdourahmane yow tamit ñu lay sant bu baax di la gërëm Malick Thiandoum dëkk la boobu miin ah. buur <laughs> complément ah, ba tey maa commandé maa commandé sujet bi parce que samay goro waa Mbour nañu. Euh, du ma ko bañ. Mbour tey xam nañ ku fi euh, jiite comité des ruubekat. Euh, bàyyi ko rek tey tey tey saa yi newu fi moo tax mu may ruube nii. <laughs> Ah, nga xam ni actuellement nii maire bi mooy Cheikh Issa Sall. moom mhm. mooy le dernier maire bu fa nekk actuellement nii. plus de cent quatre-vingt-un mille habitants. Mhm. mais ci histoire yéen a ngi dégg ñuy wax góor gi Mbour Faye di séeréer bu nga xam ne. Mhm. ñu bëri jàpp nañ moom moo jox tur bi dëkk bi. ñu xam leen ni rek. premier habitants yi ay séeréer la woon. ndax dafa amoon euh, xeex bu tar bu amoon diggante Kayoor ak Siin mhm. euh, mu am séeréer yu nga xam ne nag euh, ngir daw fitna jooju la ñu ñëw euh, implanté wu ci Mbour actuellement fi nga xam ne fa la préfecture bi nekk mhm. foofu la ñu njëkkoon nekk góor gi Mbour fay bokk ci ñooñu nga xam ni mhm. ñoo jox tur bi dëkk bi dëkk bi nag dëkk la bu nga xam ne màggam dafa gaaw trop parce que le 4 décembre 1926 lañ ko érigé en commune le 12 janvier 1927 ci le gouverneur général daal di def les premiers membres de la de, de la commune mu jàpp également Mbour nekk dëkk bu nga xam ne ni ma ko waxee léegi màgg gi gaaw na mais Mbour dafa melting pot mm-hmm. parce que am na Mbour séeréer mbuur soose mbuur lébu coose est coose ouest sant su donc mbuur tukulóor mbuur tefes mbuur móor donc wane rek li nga xam ne également moo fa gën a fës ci wàllu culture mooy kankuran bi nga xam ne en 2008 la ko UNESCO def patrimoine mondial de l'humanité ci wàllu football ak sport yaa ngi koy wax léegi stade de mbuur mbuur petite côte jàmbaar euh, ak euh, Kër Madior waaw mhm. ñu ràññee fay tamit euh, ku ci mel ni Karambo Mbodj. 7h40 7h40 jot na kon daal ma yemale foofu. donc arrêté wul du bàyyi <laughs> de. ah naa la limal ay ay ay ay kàngam yu fa nekk. aywa jërëjëf jërëjëf waaye itam Bombardier. waaw le roi des arènes Mbaye Diouf Dia. <laughs> Caroline def lu leen sax Babacar da leen baal j'espère. naata il est de naata aussi ah. vraiment ñu koy ñu ñu koy nuyu au passage.